jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi rafetlu sunu ànd ak yéen seen mbokk Talla Diakhaté xel ko moo nekk ci kàddu gi maa ngi nuyooti mboolem ñeent xaaj yi dégg sunu kàddu góor ak jigéen mag ak ndaw fu ci nit nekk ñi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ginnaaw bu loolu jàllee xam ngeen ni am na ay chronique yu ñu daan def di ko tuddee sama xalaat ci tolluwaayu réew mi waaye ba tey tey euh, chronique bi mi ngi jëm ci sama xalaat ci tolluwaayu réew mi waaye sama xalaat ci tolluwaayu dëkk bi ma nekk euh, di Touba Mbacké. Euh, ku ne xam na ni tuuba bu weeru màggal tero dafay nekk serbe yoon maanaam dafay nekk jëmuwaayu mboolem rek kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yi ci kilifa yi aada yooyu nag mu mel ni am na ku naan seen excellence président Macky Sall. war na fee ñëw seet si kilifa gi di sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké euh, man nag euh, du ma APR ànduma président Macky sàll waaye nag taalibe bi Tuubaa laa boo xam ni lépp loo xam ne rek dafa jëm ci war may dëkk bi am naa sañ-sañu yëkkati sama kàddu joxe ci sama xalaat en tant que bi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp liy war may dëkk bi rek ñun suñu bakkan lañu ci teg. président Macky Sall ànduma ak moom tey ànduma ak moom ëllëg bokkuñu gis-gis ci politique bokkuñu xalaat ci politique loolu moom leer na ñu bari ñi may topp waaye nag dafa am ñu jóg. ni bu dikkee fii ci Touba maanaam danoon saboote dikkam googu muy dikk ci Touba te Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Touba Khadim Rasoul muy ak ganam mu bëgg nag ñëpp ànd ak yar ak teggin mu mel ni am na fi ñoo xam ne ci dëkk bi euh, daanaka jëf ji ni def jëfi bàyyi ma la su ma nee jëfi bàyyi ma mooy euh, koo xam ni euh, topp nga sa bakkan lépp luy sa intérêt bopp rek sa bakkan nga ci teg loolu nag lan ni il faut mu dakk sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke nit la koo xam ni jëmm la joo xam ni li muy xiirtal nit ñi mooy bëgg sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tege ci yoon siraatu mustaqiima mu am nag ñoo xam ni euh, politique fi ñu toll dem na ba fëkk leen ba xàmmeetun lan mooy war worma xàmmeetun lan mooy dignité xàmmeetun lan mooy ak taalibe ci santaas ak tappale ak wuruj ci leen di dox ba tax na ñooñu ñu yëkkati seen kàddu ñenn la rek ci ñuy politique fii ci Touba ni kat bu dikkee fii ci dëkk bi ganu ko sëriñ bi danañ xajamal dëkk gi danañ ko saboote loolu nag duñ ko may kenn. duñ ko may kenn na leer ñun ànduñoo ak Macky Sall ànduñoo ku ànd ak Macky Sall waaye nag sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké moom lépp lu mu bëgg rek loolu suñu bakkan lañ ci teg fii ci dëkk bi bu dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké loolu man Talla Diakhate xel ko maa ko wax te jël nañ suñu matuwaay yëpp incha allah li wér daal mooy ñun saabu weeru màggal teroo lépp lu jëm ci politique ku nekk am na koy àndal ci politique ku nekk am na koy défendre ci politique waaye su màggal jubsee surtout weeru safar bii ñu nekk jàpp naa ne ku nekk war ngaa am leneen looy woo lu dul gan gi kat bu bu dikkee danañ ko saboote danañ ko yuuxoo te jàpp naa ne sëñ bi même bu amoon ganuk monaat wala ganuk till ñu dañ ko war a war warmaal jox ko ab cër waaye ñun du aw warugar ci ñun ñenn ci ñun jóg di def ay euh, vidéo Euh, di di di wax di coow di ratatati naan gan gi dañ koy sabot loolu moom nga ko may kenn sant woo mën a sant ak koo mën a doon ak foo mën a bàyyi ko nanga xam loolu moom suñ bakkan lañ ci teg ginnaaw bu loolu jaalee tamit am na fi ñoo xam ne ñi ngi def ay vidéo euh, di di di di di di di wax lu nekk ñu koy wax ci vidéo yi te gis nga ñooñu def ay vidéo noonu di ñàngale ko di dox ci ay chantage tey ji koo ci woowoon jox ko ab som ci xaalis tey jii mu defaat beneen vidéo boo xam ni dafay am ixtilaaf ak vidéo ba mu defoon démb kon loolu du du lu dëggu man Talla xel koom nag ci dëggu ak dëggal ci laay dox lépp lu ma mën di yëngu ci politique ci chronique ci yëg joxe sama xalaat bu Serigne Touba Khadim Rasoul soxla sama lépp jël naa ko jox ko Serigne Touba Khadim Rasoul bi may soog a dugg ci wàllu communication di yëkkat sama kàddu di wax ñu may déglu damaa dog woon ni lépp lu may wax maa ngi ciy yéene liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul loolu nag ci laa nekk kon nag képp ku jóg ngir bëgg a juwaloo ak waxi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xam ne moo fa nekkal Serigne Touba suñu bakkan lañ lay jaay loolu moom la leer ñëpp sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke daal dëkk bii genn kàddu moo fi am te ak kàddoom lay doon loolu maa ngi ko yëgal mbokk taalib bi yëpp képp ku jóg ngir bëgg a salfaañe bëgg-bëgg sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke déclaré na la guerre ak koo mën a doon jërë ngeen jëf